baar ba suukaroo mu mel ne màggal jooyoo ba dal kent latul ko mu àndal ba mu demee sëriñ ba moo ko teeru yëpp dosi mu daal fay feeru seex baara jenn daal di toog ba ku sopp seex baara jógal màggal ko seex ba nga koo gis yow jógal sargal ko ku sopp seex baara jógal màggal ko seex ba nga koo gis yow jógal ko mooy bàyyi naa soo daal sëriñ Basiiru jaara masidi moodu laamin jenn wa abali war a safara hima maan waaw waaw jamaa ci leeri Seex Bamba la naan ba jéejal duyal na aw nitam ba ñepp feesal ikam ba wonte luqmaan min xablu ñoo ko jagoo bii daala keelo durus kitaab laay lay fanaane waxtaanu sang Mbàkke lay waxtaane kërool la gis Sëriñ Masamba Daaro mu naa ko feex jenn waneemal jaaro mu dellu gis naam Cerno Ibra Faati mu wakkoo la xewen ca Daaru Musti barsàq jël na waaja am maqaama lu mu sam jox na gaayi Mbàkke xar wara safa fi ma naar waaw wam jamaa alhamdulilah ma teenoo sant xiwali seex bambay jar naa sant ta sant seex saliw ma mi feeñal xiwali seex bambay jar naa siiwal saa su ndigal jógee mu daal cay soobu te ànd caafit na ne mooy may soobu jaajëf fa seex saliw moom seex bamba yàlla nu yar fanu gudd ma maara te yàgg noo wocc la jeeyu bamba nu yàgg koo wuji ci barke bamba wax ja sëriñ bamba waxan ca géej ga bi feeñal ko kilee seedi kooka kitaabu rabbuka ne leewa konto këru tere ga ci ay wolof tere bi moo ma waaye tere bi yàlla ko nekkal wax na yan ee ni wax ko goo ko gaayi ci ab dëkkam ña goo ko gaayi bewi wal tax mi daar yee anil fu wal tax si war baatili fi du yoori Seex Bamba moonu neexalal sunu ñam yi te moo rafetal kër yi nikal efforce ba ànd ak ceebu Seex Saliou Mbàkke re adim ceebu santanu war nun ñu dajeeg baay saanul ak jamonoy Cheikh Abdoulaye Atum Xaar amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal muminuun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير laa yukallifu llahu nafsan illaa wus'ahaa lahaa maa kasabat wa alayhaa maktasabat rabbanaa laa tuwaaxiznaa in nasiina bismillaahi rahmaani rahiim bokki jullit yi fi ak bokki taalibe yi ak bi ñuy déglu noo ngi yëkkati kàddu muy kàddu yu nuyoo ak cant tënk ko ci nuyoo lislaam boobu te mooy jàmm ak yërmande ak barke ñaan sunu boroom mu fulal ñu ko te tasaareel ñu ko ci mboolem àdduna bépp waaye raw na réew yi nga xam rawat na réew yi nga xam ne nii ay jullit ñoo fiy dund rawatina suñu réew mi Sénégal ci barke mag ñu baax ñi nga xam ne nii ñoom la ñuy daje di leen waxtaane di ñaan ci barkeb sëriñ bi ak barkeb mag ñu baax ñoom ñuy waxtaane jafe-jafe yi nga xam ne nii moom la jullit yi dund jamono yi ñu toll te jafe-jafe bu ci nekk mën a faagaagal askan suñu borom dimbali ñu ba jafe-jafe yooyu mën a saafaru ba lépp delluwaat ci jàmm ak benn jafe-jafe jiituwu ci kàddu jullit yi nga xam ne nii tey dem na ba nekk ay kàddu yu baree bare te ku nekk xam na ne ku jàng wàllum civilisation la koy taxawal ak li koy daane danga xam ne civilisation buy daan bu nekk ci kàddu yu tàqalikoo ci lay commencé bu kàddu yu wuutee bari ku nekk di waxee fa mu nekk boobaa ngir ñu boole man-man yi de daal di jafe ndax ni kàddu yu wuutee ne man-man yi di tasaaroo te bu man-man yi tasaaroo lañ bëgg a taxawal dootuñ ko mën a taxawal kon man-man yi tasaaroo kàddu ko tasaaroo moo ko indi te ñaare bu man-man bu tasaaroo ku nekk da ngay xool lay sa njariñ nga sëgg ca sa bopp sa bopp bi nag fu mu nekk bu ca teel a jóg ab safaan lay jur te mooy mbooloo moo xam ne nii fañ bëggoon màgg fa dootu fa àgg kon loolu lu am solo ñaan ci bis yu mel nii bu ñu dajee di ay jullit ñaan suñu borom delloosiwaat xel yi waaye delloosiwaat gis-gis yi ba ku nekk mën a xool sa bopp di gis sa morom sa bopp ba lépp mën a jaar yoon ba fañ bëgg àgg ñu mën fa àgg ci jàmm ak salaam ni ko lislaam bëggee sëriñ bi jàngalee ko yaa ci ay nit ñu ñëw jàngal ñu loola ñu waxtaanee ko sant bu baax ñi nga xam ne nii nooy taxawu mbooloo mi daayira bi nga xam nooy taxawal guddi gi di ay ndaw yoo xam ne nii mën naa am bokk na ci leen tax a mooy moroomi tut tànk yi ñu féete suuf nu ñuy mën a fexee ba yee leen yëg yee seen yëg-yëg yee seen responsabilité ba leen war ëllëg ñu mën koo taxawee ci gannaaw bu fi mag ñi bàyyi ko ndax ku nekk xam ne mbooloo mooy xool boo gisee ci biir ay borom bopp yu weex kese dalay wóor ne mbooloo mooma ak doxam dootu yàgg waaye mépp mbooloo moo xool gis borom kawar yu ñuul ëpp ca mbooloo la mën nga am yaakaar ci mbooloo moom kon ndaw mi bu ñu leen tegee fi ñeen war a teg jaar nañ fi ñu war a jaar ëllëg si biir bis bu ñu demee ba yëf yi mujj seen loxo duñ doon ndaw ñoo xam dañuy mujjee ak puso mu ngi leen ci te loolu liggéey mel nii ci bokk bis bu mel nii bu amee ñu daje waxtaan ci fàttalante ci ba ku nekk mën cee jële bind ndax dafay mel na ni manqué du royteef xëy na xam ko moo manqué ndax tey benn ndaw yoo xam ne nii loo leen laaj ci liy xew ci àdduna bi ci wàllu ay caaxaan ay fokkat mën nañ laa wax fañ juddoo fañ faatoo seen doom seen lépp mën nañ la ko wax waaye koo ci laajoon tey Sëriñ Tuubaa mi ñëpp xam nga xam ni ñëpp xam nañ ko ñu bari boo leen laajoon tey ñu baree bari sëñ ñàkk xam la waaye royteef yi ñu kon nag dajaloo fàttali leen royteef yi mel noonu mën koo roy loolu am solo la ci bis yu mel nii te ku nekk xam ne nag wolof danay faral di wax ne boo demee ba xamatoo foo jëm da ngay fa nga jógewoon tey ci suñu réew yi ni mu tëddee nga xam ne jéem nañ ba tàyyi pexe mu nekk seet nañ ko ngir jafe-jafe yi ñuy dund ñu mën cee génn génn ci suñu askan day mel ne yoon wuñ jël buñ demee tuuti gis ne yoon woowu day sakk kon day mel ne day jot ñu dellu siwaat jàngataat dundu mag ñi xoolaat jéem cee génne loo xam ne ni buñ ci tegee suñu tànk jafe-jafe yi ñuy dund daan ci mën a génn te loolu lu mën a nekk la ndax li fi mag ñi jàngaloon bàyyi ko fi sëñ Tuubaa jàngale ko yar ci ay mag bu nu ko fàttalikoo jéem koo dund jafe-jafe yi ñuy doon jànkoonte yépp dana jeex ndax fu nekk xam ne ni sëriñ bi muy ñëw fekkoon na fi situation yu gën a garaaw yi ñuy dund fuuf te ci am njàngaleem ak i jéegoom ci la ko jaaraloon ba fekkel ko saafara ko ba yëf yi doxee na bëgg mu doxee kon naa la buñ ca delloo jafe-jafe lu mu rëy rëy dañ ko mën a jéggi ba jàll loolu nag mooy kon fi ñu koy tàmbalee mooy bu ñu toogee ci jotaay yu mel nii ndaw ñi bu ñu leen bëggee teele yee mooy ñu fàttali leen baat yi ñu xam di ko jëfandikoo ñu di leen ko leeral leeralal dara jiituwu ci nag ak murit lan mooy ak murit loolu def naa jotaayu murit bu ñu daje jamono yi war nañ ko waxtaane ba gën yee nit ñi ndax ni ko sëñ bi jàngale woon yaroon ci mag ñi ñu doon waxtaane léegi bañ àgg ci fiñ ci àgg te loolu dañ ñëw ci kanam loola lu mat a fàttali nit ñi la ndax bu nu ko xamee te jaar fa mag ñi jaaroon buñ àggut fañ àggoon it dañ leen mën a jur dañ leen mën a jege waaye day fekk ñu xam murit googu mooy lan murit googu la nga xam ne léegi jamono yi bari na yiñ ciy dugal yi baree bari yoo xam ne nii wuute naa na ko sëñ bi jàngale woon lool te ku ci deful ndànk loola mën na laa fëkk ndax da caa bari lu cay xoy-xoy nur lu rafet lool te neex lool te fekk na wuute naa na sëñ bi doon jàngale ndax sëñ moo jàngale boobu ak murid waaye nag bu nee ba baat bi sax léegi ñu bëgg ko fee jëlee di wut tur yu bees léeg-léeg nga dégg ku wax bamba ji bamba ji aw tur la bees bu ñuy wax di jublu murid te kenn mësta gis fu sëriñ Tuubaa bind baat boobu mag ñim yaroon tam mës dégg ñu koy jëfandikoo wala bu ñu ko jëfandikoo lu néew lool la te ku nekk xam ne ne sëriñ bi mësta jël yoon wi di ci tudd boppam mësu cee gis boppam dafa am fu mu wommatoon nit ñi jëmaleen fa loolu ñu war koo bàyyi xel te tur yi bu ñu ko soppee melokaan day soppi saa yu ñu soppee tur rek melokaan day soppi kon baat yooyu ñuy jëfandikoo di ko sol ci bopp ndaw ñi ba ku nekk jàpp ne murit gi mën nga koo fiire na la neex loolu day laaj bu ñu toogee ci bis yu mel nii ñu bokk fàttalante ci waxtaanante def naa leen jëf dégg fii ci témoignage suñu gis bi yëpp daanaka foofu lay jëm ndax mag ñi ku nekk xam ne ne seen bi fa mu leen du fu neex ku jàpp ne ak murit bànneex la ak topp bakkan boo dese ngaa dégg ak murid ndax murid mooy jullit boo xam ne nii da ngay def li jullit yépp di def ba noppi nag jël ay tegandaar yu diis yoo xam ne ni yaa koy teg sa bopp tànnal ko sa bopp muy lu metti loolu ku nekk xam fi ci sëñ bi jaar mag ñi mu doon yar liñ ci daj ba doon ak si fi ak si kon wërta mën a nekk lu ñuy woyefal wërta mën a nekk tam lu ñuy moderniser ba di ko wutal tur yoo xam ne ni day mel ne da koy yombal ndax ci suba rek bi may bi may gëstu gëstu bi liir naa ci benn article boo xam ne nii mi ngi doon wax Cheikh Issa Dieng mi ngi waxtaane fii ndax dafa mel ni penc mu nekk sëñ bi dafaa def jëmm te bu ñuy waxtaane foofu mën ne jox exemple ci jëmm jooju li ma liir foofu mooy ne sëñ Issa daana wax mbooloom taalibe koy toppoon ne leen jamono dina ñëw am yoon woo xam ne nii da leen di galan mooy nag aw yoon nag bu leen galanee balaa ngeen ko wan seenu man a seenu mën a dox na ngeen xam fi yoon yu jëm ndax nee na topp ci aw yoon waxoon fu jëm di daw nee na ak fental la te fental ñu ko fajtalu bu yàggee ak ndox lay jur kon lu xoy-xoy romb la nga jot nga topp daw topp ca loolu jamono yi la xew waaye jamono yi man ñi ñoom xewutoon jàngiluñ ko tam loolu nag ndaw ñi dañ cee war a gën a bàyyi xel xam ne fu nekk jëwriñ dafaa nekk te it sa maam juddoo ci keppaaru Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa yaral ko boppam sa way ju juddoo fa say bokk yépp juddoo fa keneen koo xam ne nii say maama ko jiitu ci yoon yi fuuf ñëw fës la yéene jàngal yoon wi loolu tam ndaw lu nekk da ko war a bàyyi xel kon fu nekk sëñ bi def na fa jëwriñ joo xam ne nii bu nu ko toppee topp ci gannaawam li sëñ bi bëggoon siñ danañ ko mën a am jëwriñ yooyu lañ bëggoon siñ danañ ko mën a am loolu nag lañ koy mën a may mooy ñuy fàttali nit ñi li sëñ bi jàngale woon te bañ caa dugal lenn liy niroog loo xam ne lu ci bokkul la ndax dugal ci lu ci bokkul mooy waral gisin yu bare li ci ñëw kon jàngale lan mooy ak murit lu war la jotaay yu mel nii fàttali ko waaye itam fàttali kan mooy murit ci boppam murit saadax boobu sëñ bi doon wax léegi nga xam sëñ Tuubaa moo ko wutal sarti boppam ñi nga xam noonu ngay mel ak murit saadax door a door a mën a waaba sawtur loolu tam ñu da ci baax la bu ñu toogee di waxtaane xidma xidmaat bokk ci baat yi nga xam ne nii moom it léegi dañ ko soppee soppi ba lu baree bari ñu dugal ko ci moom it laaj nañu xam lan mooy xidma ci boppam xidma mooy jëf dañ ko firi ci kanam tuuti baat ko xidma mooy lan nu muy mel boo koy jëf ak naka lañ koy mën a leerale nit ñi bala sëñ bi jubloon ci baatub xidma ñu mën koo liggéey ba mën caa jële ngirte li nga xam ne nii moom la sëñ bi bëggoon ñàkk xam xidma dëgg-dëgg mooy tax léeg-léegi nit di ko gàttal lool ci jëf juñ mën a làmb di ko def wala xool ko di ko gis jëf joo xam ne ni kàttanu yaram moo koy def wala poos bu fees moo koy def donte loolu ci la bokk lu am solo la ci waaye day mel ne léeg-léeg nga gis koo xam ne nii bu defee loola day jàpp ne moom jaanam wàcc na def na xidma bi ko waral fekk na fàtte na pàcc bi gën a am solo ci wàllu xidma te mooy pàcc bi nga xam ne nii mooy defar doomu aadama moo tax képp koo xam da bëgg a def xidma day laaj nga laaj sa bopp kan laay defal xidma kan laay liggéeyal lu tax ma koy liggéeyal ak ci lan laa koy liggéeyal loolu ñetti laaj la yoo xam ne ni ku nekk bu fekkee dangaa bëgg a def xitma war nga koo laaj sa bopp te jéem koo tontu kan laay xidmaal lu tax ma koy xidmaal ci lan laa koy xidmaal ndax xel moo nanguwul ngay defal nit te xamoo lu mu bëgg ci misaal tey boo amoon ku wéradi ci kër gi rek bëgg googu bëgg a jàppale te xamoo lu mu bëgg tax nga jox ko sa médicament wala garab goo xam ne day yokk jàngoro jam nekkoon loolu da ko yokk jafe-jafe waaye defaloo ko lu ko neex kon boo bëggee liggéeyal nit da ngay xam fam jëmoon ak la mu bëggoon nga jaara ca loola ba liggéeyal sëriñ bi ku nekk xam na ne bi muy ñëw am na lu mu bëggoon am na fu mu jëmoon am na lu mu yéene woon loolu la ñuy gëstu ba xam ko nag ku bëgg a liggéeyal sëñ Tuubaa nga jaare ko ci bëgg bëgg boobee ak gis-gisam boobee mu gisoon ba man caa ba mën ko caa liggéeyal waaye nag liggéeyal nit ki te xamoo moom lu mu soxla xamoo lu mu bëgg xamoo lu mu doon jàngale loola dana jafe lool làmbatu googu nag moo waral léegi ñu baree bari da def lu baree bari jàpp ne xitma la fekk na sax ka koy defal mën naa am du doon lu ko gënal loolu maanaam ñu war koo gën a xam ci wàllu xitma moo tax jël xitma ci déggin wu yaatu xam ne ni mu amee pàcc boo xam ne nii dañ koy def ci mu jëf jiñ mën a làmb di ko daj wala ñu koy xool di ko gis noonu la amee pàcc boo xam ne nii itam moom du lu ñuy xool di ko gis waaye nag mooy li ëpp solo ci xitma te mooy fi li bi defoon ci mag ñi ba kas boobu ñu doon waxtaane léegi ñu mën koo am loolu xidma moo koy def ci nit kas maanaam loo xam da ngay dem ba wuññil la kiiraay yu baree bari nga di ko mën a jàkkaarloo moom loolu xidma moo koy def ci doomu aadama te bu ñëwee ci bidaayatul xidma dañ ñëw ci kanam tuuti sëñ bi dana koy wax sëñ bi dana wax ci bidaayatul xidma ne day jiital taxliya teg ci taxliya bu taxliya ñëwee taxliya ñëw nag ci la tajliya di ñëw aw tajali di ñëw taxliya mooy raxas nit ki ba mu set ci xeet yi jikko yi nga xam ne ni jikkoy safaan la taxliya mooy takkaaya nit ki mboolem jikko yu baax yi nga xam ne moom lañ soxla ci murit bu ko defee nag la cay topp mooy kas mooy tadliya mooy nga gis loo xam ne nii ku dul du ko gis ku dul du ko xam loolu nag xidma moo koy def jumtukaay la boo xam dañ koy def te loola ci pàcc la ci pàcc xidma moo tax kon bu ñuy waxtaan xidma te waxtaane ko ci déggin wu yaatu woowu dana am solo lool ci jamono ji ñu nekk nii ndax mooy tax force yi nga xam ne mu ngi ci biir yoonu murit te mën koo jëfandikoo ci fànn yi baree bari ñu mën koo jëfandikoo ba mën a tabax nit koo xam ne nii royteef lay doon te mooy doon al muridu saadax murid saadax mooy nit koo xam ne nii ku ko gis xemmeem ko di ko roy boo gisee mag ñi fa sëñ bi daan yabal comme ci masaan formé ba yabal la ci barab samp la ci barab boo demee doo woote sa melokaan rek la nit ñuy gis mel na ñoo lay bëggal seen bopp di daw di ñëw ci yow doo wax kenn sëñ bi kenn mësu ko propagande kenn mësu ko dox di ko publicité waaye ay nit la formé ci ay melokaan ak i jikko ku la gis danaan waa kii moom fu mu jaar ba mel nii commencé intéresse say mbir bu ko defee ñëw fekk si la loolu mooy li tasoon yoon ci tasen bu gaaw a gaaw waaye nekkutoon lu ñu daan wër di ko géewal wala di ko wooteel wala di ko defal yu mel noonu loolu nag liggéey la bu sëñ bi defoon ci ñoom bañ mënoon a seen man-man yépp ñu mënoon ko mobiliser ba mën koo jëfandikoo loolu nag lu am solo la ndax am na ku ci ñoom ku bindoon wax ci sëñ bi bi koy tàgg huwa alxaws wal mixiyaas rabba qulubana wa ajsamana fal kullu saafin wa naam mu ne sëñ bi mooy xaws xaws mooy kuy xettali mooy mooy xettali mixiyaas mooy jumtukaay bi ñuy xettalee loolu déggin wu xool la ci dégginu sëñ Tuubaa mooy ne nit mën naa am xam-xamu li nit waaye du am jumtukaay bu mu ko xettalee mu ne sëñ bi nag moom mooy xettalee ba am jumtukaay bi mu mën a xettalee nit moom nag moo yar suñuy xol defar suñuy xol ak suñuy yaram ba mu set wicc ba koo ko gis xemmem xemmem teef googu nag moo indiwoon nit ñi ci mag ñooñu ñëw topp sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu loolu xidma moo ko def ci ñoom waaye nag day xidma boo xam ne nii sëñ baa ko defee ñoom ci wàllu ruux moo tax bu nu bëggee waxtaan xidma ci déggin sëñ bi dañ ci njëkk wax ci xidma ci boppam ndax sëñ bi njëkk koo wax njëkk koo indi lu fi yàgg la jamono ji ñu toll it am na beneen façon xidma ba ndax xidma bu ñu ko waxee ci baatu tubaab mooy service service boo xam ne da nga koy rendre nit te doo ci séentu ak fay gu teer wala doo ci séentu rendement boo xam ne nii da koy daal di jot ci tàng-tàng loolu mooy loolu mooy service yi ñuy defal nit ñi loolu mooy xidma loolu nag ba àdduna sosoo ba léegi mi ngi fi kon dafa am façon déggin yu bare bare yoo xam day nekk ci biir moo tax foo xool ci wàllu dund yi wàllu dund yi moo xam ci wàllu koom ci wàllu social ci wàllu boo man di xool da fa gis li ñuy wax baatu xidma ci jamono ji ñu koy dund ci misaal tey rek am na bagage yoo xam ne nii bu ñu la ko jaayee am na lu ñuy tuddee service après vente maanaam loxo bu la ko jaayee tegal daal gi ñu lay tegal goo xam mooy bu paane ñu ñëw dépanne la ko doo ci fay dara loolu xidma lay tudd loolu service lañ koy tuddee loolu mooy xeetu xidma yi nga xam ne ni ñu ngi koy jëfandikoo di ko gis ba léegi kon mooy man-man wala boog jëf joo xam ne nii nit ki da koy def di la ko defal bu noppi di la ci laaj ak pay ci tàng-tàng bi loolu mooy xidma moo tax bu ñu ñëwee ci ci déggin wo bu ñu xoolee ci murit murit buy jaayante da ngay am loo jaayante li ngay jaayante mooy loo ma digal ma def ko loo ma tere ma bàyyi sëñ bi ko jënd ceew lu mu koy jënd ceew mooy danaa la teg ci yoon woo xam ne nii boo ko wàcc bu ëllëgee fu gaa yu baax yi àgg dañ fa àgg loolu mooy jaay lee nga jaay li mooy njëg kon li nga jaay mooy loo ma digal ma def ko loo ma tere ma bàyyi ko taali bi bu ko xas wax amatoo sañ-sañu sëb sëriñ di digle nga ci am loo cay xalaat ndax loolu sëñ bi andi na ko ci muridu saadax wax na ko ci muridu saadax ne su mam tisaalu amrihi xay su war a nee na muridu saadax mooy koo xam ne nii fu ndigalul sëriñam jóge da koy def te sax du am lu mu ciy xalaat bu dee murid saadix du analyser ndigal ndigal bu xasee jóg doo xool ba xam sëñ bi war na ko wax woon waru koo wax yow da ngay def ba noppi boo defee ba noppi nag door a gis résultat te loolu ñun ñi ñëpp ku ci amul seetlu da ko gis bis bu set ñu jox la ndigal loo xam ne nii boo ko doon analyser doo ko def waaye nag boo ko defee ba noppi da ngay gis ne ndekete lii mëntoon a ñàkk su ma ko def doon dara du baax loolu nag boo fa bëggee jëfandikoo sa xel bëgg koo analyser boobaa doo ci génn moo tax sëñ bi dafa wax ne tarkul ixtiraadi mutlaqan dafa bokk ci sarti mu risaala te mooy dootoo am looy gaar bu ndigal xasee jóg dootoo ci am looy gaar loolu kon jëfi ndigal bàyyi tere ku nekk da marchandise la moo xam ne ni da ko koo jaay moomatoo la nga ko jëndee mooy ñu defar la teg la ci yoon woo xam ne ni fu gaa yu baax yi ak gàgg fa kon murit bu xas jaayante jëfi ndigal bàyyi tere par force lay doon ci moom ndigal loolu ay pàcc la ñu bari duñ ko ràññee mooy ne mooy ne ñu sëñ bi joxe ndigal nga def ko loolu daanaka murid yi bare bari wax dëgg yàlla weesu nañ ko daan daan lu amatuñ ci jafe-jafe waaye fi jafe-jafe bi nekk mooy jëli ndigal jëli ndigal mag ñi dañ ko fonkoon lool te murid yu bari commencé ko sàggane dañ joxe misaal ci misaal tey ku masaan am doom ci kër dong kër boobu xale bu masaan judd kenn ni mu mësta ñeme joxe tur sa doom te delluwoo jëliwoo ndigal da ngay dem sëñ bi ne ko soxna si am na gan mën na la jox ko tur sàngam te loolu lu manqué la fi ne léegi day gis ko am doom tudde ku ko neex seet ku ko neex mu tudde ko wala nga bàyyi ba sëñ bi ñëw nga ñëw taxaw ci nopp bi déyee ko ne ko diw laa koy tudde kon koy foofu amatul ndigal te loolu ñu baax duñ ko bàyyi xel tool yi ñuy bay nii bu njëkk ko masaan bay ba mu da ngay dagg mbool mbool ñëpp xam nañ ko da nga koy dagg aw sayu mag yóbbu ci sëñ balaa nga koo ñam sëñ bi ñaan ci def ñaan jox la ndigal neel bu ngeen demee ngeen ñam kenn mës ta ñamee bay tool ba noppi di ci lekk te sëñ bi joxewu ci ndigal loolu dafa nga gis ba tey soxna sax mësuñu ko ñemee takk te ndigal jëluñu ndigal dañuy dem ne sëñ bi kat ku mat a am soxna neneen ci kër gi mu ne doomi diw day mat naa am borom kër ñu jël leen boole leen suñu wax na ko léegi ci témoignage bi na suñu baara jël loolu loolu taalibe bari ba dañ ko bàyyi xel te bokk ci ponki ak murid saada mooy bala ngaa def dara da ngay dem jëli ndigal kon sëñ bi digle nga def ko loolu moom kenn ko waaye nag bala ngaa def dara dem jëli ndigal moom la taalibe taalibe yi baree bari xaw wayefal léegi dem bokk ci ponki murid saada loolu li muy jur gis nañ ko sëy yu rëngën yu bari ci sëy yi njaboot gu dëgër bopp kenn mënul leen dara yàq-yàq yu bari yépp li koy jur mooy ndigal def ko lan la liggéey jëf ci bu ko ndigal lalul loolu du baax ndax sëñ bi def laa tafaalu shay'an bi xayri isni fa isni shartun fi qabuli shay'an sëñ bi def bu leen def lenn te amuleen ci ndigal ndax ndigal shart la ci nangu jëf kon jëf balaa ñu ko nangu day fekk ndigal di ko lan jëli ndigal boobu ci xit ma la bokk ndax xit liy defar doomu aadama ci la bokk liy defar ruuxu doomu aadama jëli ndigal loolu ci la bokk kon effort bi ngay def boo jaayantee ba noppi nag la ngay def jëfe ndigal bàyyi tere moom danga koo jaay la ca des nag nga di ko def nag ngir defar sa bopp ba sëñ bi mën a def ci yow li soxlaa def ci yow loolu mooy xidma bi nga xam moo war sa digg sëriñ bi moo tax yu bare bare sax bu ñu ko gisee da ngay jàpp ne loolu xidma boo ko tax a jóg waaye defar jëmm ji boo ko tax a jóg bu ñu gisee tar bi doo ngay tar bi fi ñu leen daan jaarale yalwaan mi leen di def loog liggéey bu métti bi ñu leen def loog jëmmi liggéey bi taxut waaye defar seen ruux moo tax ñu koy kon ruux gi moo tax sëñ bi jóg sëñ bi maanaam matière bi ñuy làmb di ko daj ni mës koo yitteel ku nekk xam ne ne addee lu mbari bari boo ko masaan dox day teg côté fële amu ci soxla kon yooyu jëmm noonu ñu bàyyi ba nag dem ba jàpp nag ne loolu mooy loolu mooy l'essentiel yoonu murit fekk na loolu mooy safaan bi dugg ci biir yoon mooy ne ak murit duñ ko natt ci alal duñ ko natt ci li ñu làmb di ko daj waaye ci pas-pas lañ koy natt ci pas-pas ci biir doomu aadama ci lay nekk kon loolu mooy xidma kon mooy xidma bu ñu ko waxee mooy bépp service boo xam nit dana ko def te séentuwu ca pay gu teew loolu xidma lay def boo xoolee tey xëy bale mbedd mi sax mu bari lool ci ci koñ yi léegi soxna yi di ko def loolu ci xidma la nga toog ba mu gis ne jëmbat ay garab nit ñi ko jariñoo loolu ay façon jëf joo xam volontaire boo xam da ngay volontaire di ko def loolu ci xeeti xidma la bokk kon nañ koy gisee ci àddina bi ñuy dund nii nga xam ne am na ñu wax service lu mel ne wàllu wér-gi-yaram lu mel ni wàllu njàng mi wàllu yooyu nga xam ne nii état moo koy garanti nit ki te di ko defal te doo ci fay dara yooyu ay service la yoo xam ne état moo koy rendre population yi te loolu xitma lañ koy tudde ci boo bëggoon a boo bëggoon xam baatu xitma boo ko nattee foofu day yomb ci yow kon booy jàng te doo fay dara faj mi ci yoon noonu la boo boo feebaree war laa faj te doo fay dara loolu mooy xadamaat mooy service yi nga xam ne ni état dina ko rendre nit te doo ci fay dara loolu tam nag la amee ci biir diine ji waaye tam ñu xam ne service bi état def di ko sonn ci nit ñi jël xaalis bare ba def ko ci wàllu njàng mi wala wàllu paj mi séntuwu ci fay goo xam nit ñi dañ koy fay waaye nag bu demee ba ci kanam day joxe rendement boo xam ne dañ ko mën a jariñoo mooy nit ku am solo ku ab citoyen bu baax bu buñ mën a jëf jëflanteel moom lay indi noonu tam nag lay amee ci wàllu diine ji diine ji li ngay def doo ci laaj pay mu baax baasaratan directement waaye boo toogee boo toogee tuuti da nga gis pay gi mu commencé ñëw ci yow mu feeñ ci sa jëmm feeñ ci say jëf feeñ ci sa doxin ak sa <clears throat> kon xidma ci wàll googu nga xam moom lañ gën a miin moom mi ngi feeñ ci jëf ji ñuy wax volontariat volontariat mooy tombe mooy tolloo jëf yi xidma bokkut ak liggéey liggéey ak jëf bokkuñu mën ngaa wax jëf ju rëy waaye liggéey bi rëy ñaar duñ ko wax jëf liggéey bi mag la ñu wax waaye jëf ju rëy la ñuy wax jëf ju rëy mooy loo xam da nga koy def te doo ci seentu pay liggéey nag mooy loo xam da nga koy def ñu lay fay bokkut ak hadiya tam dañ ci ñëw boobu moom ci kanam tuuti xidma ak hadiya bokkuñu ndax boo demee suñ da leen a bu boolewu leen ñoom ñaar dafa wax bi xidmatin aw bi xuddin aw hadiyaat ku nekk daf koo ber kon xidma ak hadiya bokkuñu xidma moom leneen la loo xam ne nii bokkut ak hadiya hadiya man naa am alal mën na ko leneen mën na ko leneen mën na ko waaye xidma moom jëf lay doon xam ne nii ak acte lay boo xam ne wala activité lay doon boo def wala pratique lay doon yoo xam nit ki ñu mën ko caa jaarale ba defal kon noonu la sëñ bi ñëwee jël baatu xidma moom it andi ci déggin dégguñu sëñ bi ci xidmatam du soree lool ak noonu ñu ko leerale woon léegi waaye nag pour ñu mën ko dégg dëgg-dëgg dañuy xool ak mouridisme li ñuy wax baat mouridisme maanaam ci lan la ko sëñ bi fondation ci lan la ko tabaxe ak rukun as maanaam wala boog ponk fondamental bi ne ci yoonu murid bu nu ko xamee rek danañ daal di mën a xam dégginu sëñ bi ci xidma bu fekkente ne sëñ bi li ko toxoon jëkk ci yoonu tasawuf mu sóobu ko mooy defar nit koo xam ne nii royteef lay doon ci biir ak ci bit kon daañ mën a daal di xam ne xidma bi sëñ bi jubloo wax moom di ko sant taalibe yi bokkut ak xidma bi jàpp ñëpp jàpp ni moom moom la donte xidma bi ñu jàpp ni moom la léeg-léeg ñu jaaree ci ngir mën àgg ci xidma bële dana ci am waaye bu nu ko bëggoon xool dëgg dëgg dañuy xool yonent yi maanaam góor yàlla yi wala boog képp koo xam yàlla daf laa mës a yónni jox la mission nga war a war a jàllale message boobu ci nit ñi message boobu lan la làmboowoon buñ demee alxuraan dañ jàng huwa allazi baxasa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim yuzakkihim jooju mooy tazkiyatu nafs te mooy defar bakkanu doomu aadama moo doon mission bi nga xam ne ni moom la yonente yi amoon ak gaa yu baax yi comme sëñ daa nekk ñëw nag ngir nekk mu jaddit ci liggéey yonente sallallahu alayhi wa sallam kon la léegi yonente doon liggéey loolu lay def te mooy taskiyatu nafs te mooy defar bakkanu doomu aadama kon sëñ bi lépp lu mu la def loo lépp bépp activité bu mu la def loo lépp lu la sant boo ko toppee ba cëppaandaw bi da ngay gis ne defar bakkan doomu boobu moo taxoon mu santaane moo tax dégginu xidma ci murit gi mënta nekk mukk jëfi jëfi yaram gi wala jëfi àddina yi kese kese waaye nag jëfi àddina ak jëfi yaram mën naa nekk laytaay ngir àgg ci xidma ci ni ko sëñ bi bëggee dëgg dëgg moo tax bu ñu delloo ci aaya boobu léegi gis ne taskeetu nafs defar bakkan doomu mooy xidma ci ni ko sëñ bi déggee kon dañu daal di gis ne kon lépp loo xam ne nii day laabal bakkanu nit ki ba yëkkat ba mën koo yëkkati ba mu nekk ci bokk ñu kawe yi ba mën a àgg ci dara darajatul kas wala ba mën a àgg ci dara tajalli te mooy ñu wëral ko kiiraay yi loolu mooy mission xidma ci yoon moo tax sëñ bi delloo ci téere bi mu tuddee bidaayatul xidma di xasiida goo xam sëñ bee ko taalifal boppam dañ ci jàgg muy wax bil aali wa sahbi wahab li taxliya bi jaahi wala yee jët bi tax liya day mel ni kon noonu la ci bay di njëkk ci xasida bi bay doowu ci la bokk mu ne ko nag ma may ci darajay xidma boobu ma am tax taxliya taxliya mooy ñu raxas ma ba mu set ci wàllu jikko yi nga xam ne ab safaan lay doon ci doomu aadama daal nag su noppee nag nag ma ci tegal taxliya te mooy mboolem jikko yu baax li nga xam moo war remplacer yooyu ñu def ko ci man loolu mooy kon loolu mooy xidmatu sëñ loolu mooy xidmatu sëñ bu sëñ bi dee tuddee boppam xaadimu rasul tam ku nekk xam na ne sëñ bi bi mu fi ñëw fekkante fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci saayir fekkante wuñ ci ci saayir ndax boo fekkante yonent bi jógee fi lu mat junniy at yi teg gannaaw bu nag fekkante wuñ fi ci saayir ba nag mu ne man dama koy liggéey ba kër ma fiy jógee kon war nañoo xam liggéey boobee du doon lu ñuy def ci ay ay cër yooyu mu du ko gis waaye beneen façon liggéey la boo xam ne nii moom la wala boog geneen jëf la yoo xam ne nii moom lañ cee dégg kon xidma ci boppam ci murit gi moom mooy loo xam ne nii nit koy def ngir defar boppam kon buñ ca gisee lenn luy niroog jëf ji ñi ma làmb di ko daj loola jumtukaay la ngir mën a àgg ci objectif bi nga xam ne nii mooy loolu mooy li ñu waxoon léegi kon lañuy def ci daaya daara ji daari tarbiya di ko teg ci dongay tarbiya yi loola ngir defar leen ndax nit mën naa ñëw nga gis ne donga bi rëy moo ne ci moom ci misaal te rëy kum ne ci yow ku nekk xam ne kenn mënu laa defar rëy képp kum ne ci yow kenn mënu laa defar nit balaa nga ko mën a defar da moom ba mu set kon rëy googu noo koy raxase bokk na ci ni ko mutasawifun daan defee mooy ñu def loolu loo xam jàppoon nga ne kenn du la ko def loolu ci misaal doomi doomi ki ñu wax ko bokk ci nàngam ñëw nga jox ko këll ne ko demal yalwaani mu dem yalwaani loolu yaa ngi raxas ci moom rëy wala koo xam daa jàppoon ne kenn waru koo def loo nàngam nga ñëw def loo ko loola ngir raxas ci moom rëy googu moo tax boo gisee mutasawifun niñ daan defe niñ leen daan defare nit ku nekk ak lay defare ndax ñoom boo ñëwee ak ci ab sëriñ li ñu ci xam mooy sëriñ bu la xoolee day xam sikk si ne ci yow bu ko defee yow na muy jëflante ak yow day xool par rapport sikk si ne ci yow nu mu koy defar bu fekkee rëy moo ne ci yow xam ne nu mu koy fajtale bu fekkee dalaa xool xam ne kiñaan moo ne ci yow xam ne nu mu koy fekkee dalaa xam ne bëgg sa bopp dong dong moo ne ci yow xam ne nu mu raxas loolu nag moo doon jumtukaay yooyu lañ jëfandikoo ngir raxas ci nit ki jikko yooyu ndax yooyu comme ne ci yow maanaam mënoo am mënoo àgg ci suñu borom kenn mënta def ci yow tam li ñuy wax Euh, gas ko loolu doo ko mën a am moo tax kon sëñ buy bind fu baree bari man san na ni xayra xadimi Mustafa fa inna ni axdimuhu bi Mustafa dellu waxaat ne axdimuhu ila duxuli al janna daaril xaraari wal munaa wal minna foofu kon lañ tey dégg rek mooy ne xidma bi sëñ bi wax kon du xidma bi ñuy wax ñun nii waaye beneen façon xidma la te mooy xidma ci wàllu ruux ndax kenn nga xam ne ne yéen salaasam fekkante feek sëñ bi te gannaaw ñoom fekkante ci jamono ñoom ngir mu xidmaal ko ñun liñ jàpp ne mooy xidma alal ju mu koy jox wala lu mu koy defaroon wala yooyu loola xel du ko mën a kon day mel ne xidma boobu moom lañ war a gën di lës hagada mooy li ñuy wax tam buy tuddee boppam buy tuddee boppam loolu daf ci ñëwaat bu nee man maay xaadimu rasul tekkiwut lu muy jox yonente bi wala lu mu koy jëfal waaye dafay mel ne kon li yonente bi doon liggéey di taxoon mu ñëw te mooy defar nit ku ñuy roy mu jàppale ko ci liggéey boobu saxalal ko ba mu continuer loolu lañ ci jublu xasida goo ci man dem muy bidaayatul xidma loolu nga cay fekk mu mel noonu nga cay fekk muqaddamatul xidma boo ci demee ay salaatu na nabi kese kese nga ciy fekk te boo demee ci bidaayatul xidma da nga ci gis muy wax ala lasi aslaxtani bi xidmatihi wa jubtali bi xifdi yi mu ne ko yaa ma may yaa ma defar ci ki ma defar ci wàllu xidma moo ma may ma mën a sàmm ormaam sàmm baatub sàmm orma boobu lu am solo foofu la kon xidmab sëñ bi moo doon sàmm orma yéen sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf ci façon boobu la ko doon xidmale buñ bëggee tënk tuuti nag ci xidma ci ni manifesté woo ci liggéeyu sëñ bi moom it ci anam yu bare bare la wàllu liggéeyu ci murid gi ci la bokk dañ ci ñëw ci kanam tuuti waaye liñ ci gën a yitteel mooy defar doomu aadama bi bi ci la njëkk ku nekk xam ne ne sëñ bi bi muy ñëw ci Mbàkke Kajoor ci 1883 fi mu fekkoon nit ñi te boo delloo ci bayit si Moussa Ka yi bare bare mu ko ciy leeral yàq-yàq gi amoon mu ñëw jël engagement ngir soppi loola loola mooy lubbul xidma mooy mooy mooy mooy l'essentiel xidma ci yoonu sëriñ fi muy waxee rabbi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi dars faqat kon xidma foofu tekkiwul jàngale xam-xam nii ci ay téere tekkiwul tam jàngale jullee woor ak nit ñi nag askan ndox loolu fi la ko sëñ fekkoon fekkoon nit ñaa ngi julli nit ñaa ngi woor di kon la doxoon leneen la mooy himma himma nag mooy yitte ju kawe nga fexe ba nit ki am yitte ju kawe yii nga xam mooy mooy mooy fàbbi nit ñi dootu ko fàbbi yii nga xam moo xëcc nit ñi bañ fàtte lu bare ba dootu ko xëcc loolu mooy yitte ju kawe yitte ju kawe jooju nag moo taxoon sëñ bi ñëw di liggéey ci nit ñi yitte ju kawe jooju moo tax ni mag ñi baree bari sëñ bi defar leen ci defar gi leen defar it moo moo jur tey yoonu murid àgg fi mu àgg ndax ba mu leen defaree bu nekk ku nekk mu samp la ci barab nga continuer di di liggéey ci la mu doon liggéey loolu moo tax yoon ak si fii tey kon rek asaabaka bil himma mooy def ci nit ñi pëstéef himma mooy pëstéef pëstéef nag mooy ngay xool la nit ñi xool du bokk ak lu nekk la koy xool du bokk ak nit ki boo koy defloo am loo boo ko defloo am na nu muy xalaat ci xelam du ko def waaye pëstéefam moo koy puus ngir mu def jëf jooju moo tax sëñ bi loolu leen liggéey liggéey bu ma a mag pëstéef bu kawe moo tax tey mag ñi ñuy waxtaane tey bu dee ci wàllu jàmm yàlla dong boo ci demoon ak ñoom ñoo la ciy man fuuf ci wàllu jaamu yàlla bu mën ci doon ñoo la dàq julli ñoo la dàq woor lépp lu ñuy def ci lu baax ñoo la ko dàq te boo demoon ci liggéeyu da sàggu sàkk lu lew ñoo la ciy man fuuf kon façon nit kooku nag la sëñ bi doon liggéey te jaare na ko ci xidma ndax ku nekk xam na ne ña jiite woon sëñ bi ci wàllu tasawuf li leen wuutalee tasawuf ni ko sëñ bi jàngalee fenn rek boo jëlee mu tasawufur yu njëkk yi ñu bari ci ñoom ci sarax ci lañ daan dund sarax maanaam dañu daan sarax ci la ñuy dund ndax ñoom dañoo dog woon complètement ci wàllu àddina bàyyi completement dem na ñoom seen liggéey bépp weesuwut jaamu yàlla te ku ne xam ne ne bu fekkee da ngaa dog ne dootuma liggéey dootuma def dara te nit il faut muy dund il faut nga sol il faut nga dund il faut nga lekk il faut nga naan kon ku lay jox lekk ku lay jox naan mooy sa moroom nit sa ma la ko jox nag lam lay jox sarax la moo ñëwee gis ne nit ñaari pàcc la pàcc ruux gi ak pàcc yaram bi bu ci nekk war a dund mu ne kon nag la yonent bi jàngale woon ci ihsaan te mooy da ngay liggéey ba mel ne doo jóg ci àdduna bi waaye itam di jaamu yàlla ba mel ne suba ngay faatu loolu mooy tënku yoonu murit murit boo gis day nangoo liggéey ba jàpp ne àdduna dafi jóg waaye itam noonu lay mën a jaamu yàlla ba nga defe ne suba la fiy jógee loolu nag mooy mag ñi sëñ bi defaroon leen ba ñoom bu dee wàllu jaamu yàlla ñoo la ko wàllu liggéey fàggulu leen itam ñoo la ciy man fuufu kon loolu may aspect bu njëkk ci wàllu xidma ci ni ko sëñ bi doon ni manifesté wala boog ni mu feeñ ci liggéeyu sëñ feeñ na ci wàllu jàngale jàngale jàngale mi ñu xam nii moom it bokk na ci xidma bi gën a màgg boo xam ne sëñ bi doon na ko def te moo ko bindal boppam wax ne inni ujahidu bil ulumi wa bi tuqa abdan xadiman wal muhayminu shahid isam xadim foofu la mu ko tudde mooy kuy liggéey ci jàngale xam-xam boo xam dana bijji nit ñi ci ragal yàlla loolu sëñ bi def ci liggéey liggéey bi mag a a mag ndax ku nekk xam ne ne moom itam ci wàllu xam-xam ni mu liggéey ci wàllu tasawuf liggéey na lu ko raw ci wàllu xam-xam moo tax bi mu ñëwee bokk na ci li mu njëkk liggéey mooy taalif ay téere yu bare bare yoo xam ne nii dafa dëppook ni ñuy dunde ñun dëppoog suñuy déggin dëppoog suñuy gisin mu jàngal ko nit ñi ñu xam ko ci lu gaaw mën caa jaar mën a àgg suñu borom loolu liggéey na mag a boo xam def na moo tax xidma ci suufiya ci xalaatinu tasawuf foo ko fekk xeetu jàngale la am jàngale la ci biir moo xam da ngay liggéeyee sa morom sa say say nawle wala da ngay nit ñi wala da ngay dimbali sax way néew doole yi danañ jox benn misaal boo xam ne nii dafa ne dañuy wax ne dafa am koo xam ne nii waaye yàlla bu baax joo xam dafa am machine am ñëw ku koy tàggu ne day dem màkk dajale alal ji mu war a paase dem màkk nee na bi mu ñëwee tàggu waaye yàlla jooju mu ne ko jox ma alal ji te wër ma mel ni kuy wër kaaba waa ji daal koy yox alal ji daal koy wër daal di dem toog nee nañ nag bi ñi nga xam ñoo waroon ànd ak moom aji ñoom bañ demee bay wër kaaba gi dañoo gis waa ji ci boppam di wër kaaba gi ànd ak ñoom léegi ñu ne ko yow de gis nañ la mag mu leen man bi ñu ñëwee loolu jaaxal leen bu ko defee waa ju baax jooju daal leen jàngal lu am solo daal leen jàngal ne leen man damaa nekk nit koo xam ne nii samay man man matul maanaam nit ku ñàkk te ku nekk xam na ne nit bu demee ba toll ci war a faatu nga xam bu lekkul faatu xet li kooka mooy ëpp solo nga def lu bare bare ci misaal boobu doon julli tey farata gis koo xam ne nii maanaam gumba ci misaal koo xam du gis dara taab bi ci teen dañuy bëgg nga dagg julli gi dem xet li sa mbokk moomu kon mooy mu ëpp mu ëpp solo ci yow loolu loolu xeetu njàngi li moo xam ne nii mu tasar dañu war jàngale ci wàllu xidma mooy léeg-léegi da nga àgg foo xam ne nii lay soxla ci yow dootu nekk julli yu bari ak woor yu bari waaye jëf lay doon jox da koy def mu àggal la suñu borom te jëf jooju dafay mën a remplacer xeeti jaamu yàlla yu baree bari loolu day feeñ ci njàngaleem tasaw ci wàllu xidma moo tax ngirum tasawuf day day day day loo xam ne nii daanaka nit daf ci àgg fenn fi door koo mën a xam te loolu déggin la ci diine wu sore sore ndax xeeti jaamu yàlla ñuy def yëpp su fekkee amul lu muy bàyyi ci nit ki jaamu yàlla bi amul njariñ inna salaata tanha anil fahsha wal julli balaa nekk julli gu am njariñ day fekk boo ko jullee ba noppi lépp luy xeetu ñaawteef wala lépp luy xeetu lu mun munkar lu maanaam lu jaarut yoon kenn dootu la ci seen waaye fii danga gis koo xam ne nii kenn daq koo julli waaye bu génnee ci jàkka ji mi ngi dugg ci kees gi ñuy carte def pay wala yu mel noonu wala gis koo xam ne nii kenn daq koo julli waaye bu génnee mi ngi dugg ci fa ñuy jëfandikoo sàngara wala yu mel noonu te ñaar yooyu mënuñu ànd kon julli googu bu fekkee bàyyiwul teew loolu day mel ni julli bi amul njariñ kasaalika koor gi ñuy def aj màkk gi ñuy def yooyu yëpp dafa mel ne defar comportement doomu aadama moo ko tax a jóg moo tax mu tasawufoon daa leen jël nit jaarale ko ci yoon wu gaaw mu àgg suñu borom te sax duñ ko tënk ci yenn yu baree bari moo tax boroom borom xam-xam bi dañuy wax ne la boo defee say farata ba noppi naafila da dangay xool te la la yàlla may nga di ci naafila ci misaal tey bu fekkee da ngay faj nekkub docteur boo defee julli farata ba noppi bëgguñ nga nekk fa di julli ay rakkaa jëmale suba. la gën ci yow mooy donte da ngay jël ñaari waxtu nga dem di ci def faj nit ñi gratuitement maanaam ay consultation gratuite moo gën ci yow nga dem di julli ay fanaanee julli ndax loolu moo ko njëriñ nit ñi mën nga cee xiyaas nag jeneen jëf ju kon loolu njàngale la ci tasafu moo xam ne nii xeetu xidma yi da nit ki loolu moom la loolu moom la borom moo tasawuf boobu doon jàngale ci ci ci ci ci kii te yéen itam jàng na fu bare bare am na fu mu wax ne xayrun naasi anfaahum linnaas nee na ki gën ci nit ñi mooy ki ëppal njariñ nit ñi ki gën a mën a jëriñ mooy gën ci nit ñi foofu waxul xëy naa si tënk ko ci yeneen yi nga xam waaye ñu ko tënk ci li ngay rendre nit ñi ci ay service kon day mel ne boo doon bëggoon a jàngal nit ki ci jaar ko ci xidma mooy nga bëgg ko àggale ci da koy jaarale ci xidma boo xam ne nii bu ca génnee day daal di gis influence wala boog asar wala impact bi muy def ci melokaanam mu daal koy gis ci saasi kon suñ bi loolu liggéey na ci ci wàllu façon boobu ci xidma jaarale ci ay nit ci yoon wu gaaw a gaaw bokk na ci li mu daan jëfandikoo xidmatam mooy tàgg yonente bi ak kañ ko ci ay jikkoom loolu ñëpp xam nañ ko waaye nag am na pàcc ci xidma boo xam ni tam moom ñun ñëpp xam nañ ko bu ñu waxee xidma ci la xel yëpp njëkk dem mooy li tax tey yoonu lu ñu bëgg a def man koo def loolu xidma ci la bokk mooy ne sëñ bi wax nañ ne bi muy bi muy laaj ñaar fukk ak juróom-ñett yi di ko dajalee mu jëm ci jumaa ji wax nañ ne bi mu noppee dafa woo mag ñi ne leen nag dama leen am lu ma bëgg a dama leen bëgg a jàngal yoon woo xam ne bu ngeen ci jaaree ëllëg si bu ngeen soxla ngeen ko mën a faj te du ngeen sonn mooy ne bu ngeen jaaree ci yoon bi ëllëg si bu lu ngeen taxawal da ko mën a taxawal seen ñaar fukk ak juróom-ñett yi moo taxawal jumaa ji kon te yoon woowu buñ ci jaaree lépp lu luñ bëgg a taxawal ci murit gi mën nañ ko taxawal te yoon kenn du ci nekk moo ne leen ndax su ngeen ko defut da ngeen am lu ngeen bëgg a def te ngeen ko mën a def ngeen dem diis ko nit mu defal leen ko kooku bu leen ko defalee daañu ci teg condition yoo xam ne nii doon condition yi ngeen bëgg te loolu mooy li am jamono ji ñu toll nii ndax ne lu bare bari dellu la gannaaw moo tax lu bari ñu koy wuti feneen boo ko wutee feneen nag kala koy jox da koy lëmasaale ay bëgg-bëggam ak ay jubluwaayam jox la ko boo ñëwee nag comme daf laa jox as cànqal nga ëmbal ko kersaam bu ko defee lu baree bari dana yàq te ci yow la jaare yàq loolu kon yoon la woo xam sëñ bi daf koo jàngale woon murid yëpp war koo bàyyi xel te lu taxaw ci yoonu murid ci loolu la taxawee barki démb gis naa ko wax ne maanaam ab murid wërta taxaw di yalwaan ak état muy lu am solo ndax bu ñu bëggoon tey lu ñu bëgg a def rek mën nañ ko def mën nañ ko def ci ci tarixul xidma tey juróom-juróom yi bu ñu ko xeeb ñaar dërëm ñaar dërëm bu ñu ko xeeb bu ñu ko dajalee murid yëpp bu ko dajalee mën naa lu ñu bëgg def ci lañ koy def loolu suñu na ko ñu bare bare xam nañ ko donte nag euh, xëy na poste bi ak noonu lay demee waaye loolu moom lu jëlta sori loolu la kon dafay ni bu ñu bëggoon a tënk dañuy wax rek ne kon waxtaane xidma tey gën a gën a concentré wu ci wàllu ruux gi dafay lu am solo ndax nit bu ruuxam baaxul maanaam leneenam du mën a baax yonent bi wax na ci xaddis nee na am na ci yaramu doomu aadama cër bu tuuti boo xam ne nii nee na aw dog lay tolloon waaye nee na cër boobu li muy tuuti tuuti nee na bu baaxee lépp baax nee na bu yàqu lépp baax lépp yàqu nee na loola mooy xol xol bu defar defarwut dara du baax moo tax defar xol yi nag loolu mooy liggéeyu tasawuf ci loolu nag ci xitma lañ koy jaare kon xitma ruux yi liggéey ci wàllu ruux yi ku bëgg a defar ku bëgg a jubbanti ci ngay jaar boo ko defaree ba noppi nag leneen loo bëgg defar day yomb ndax xol bu xasee baax nit ki loo ko bëgg a def loo ci lu baax dana ko def waaye xol bu toj xol bu nanguwul bu ñu ko defarul loo ko bëgg a def loo ci loo ko yéene yéene lu baax du ko mën ndax xol bi moo dul toj toj xol ba defar ko ba mu set loolu mooy tax nit ki luñ ko bëgg a def loo ci lu baax mu def te yit nag wax nañu nit boo ko bëggee àggale ci yàlla te mënu koo tere mu def mënu koo mënu koo tere mu bàyyi mënu koo digal mu def boo ko diggee àgg ci yàlla da koy dox kon ki topp ci nit kii te ne dama bëgg dama bëgg màggalam ci yàlla te xolam toj goo xam ne ni liñ ko digal mu def ko liñ ko tereel mu bàyyi ko boobaa bu jàppee ne mën naa àgg tam day nax boppam ndax loolu sart la ci kii bi kon gën a xidma ci wàllu ruux bu nu bëggee yëf yi gën a dox danañ ko gën a bàyyi xel bu baax ñàkk koo def nag moo tax tey nattukaay yëpp sot nattukaay yëpp dañ ko wëlbati la féete ko mel ne féete suuf léegi ni ñuy natteeb sëriñ dafa soppi ko ni ñuy natteeb taalibe dafa soppi ko ni ñuy nattee dox doomu aadama dafa soppi ko liggéey ne sax ni ñu koy natte dafa soppi ko tekki ni koy natte dafa soppi ko yooyu nag li ko sopp mooy ay ay mbir la yoo xam ne nii day laal pas-pas ni doomu aadama yi te day gis koo xam ne nii moom bu ñëwee joxe addee ji duun defe na ne def na xidma ba noppi xidmaan wàcce te fekk na addee ju doon jooju sore naa xidma lool sore naa xidma lool donte mën naa dugg ci buntu xidma waaye sore naa xidma lool ndaxit it dafay am léeg-léeg gis taalib boo xam ne nii addee ju doon ji muy ji muy joxe day tax bu ñëwee bët bi muy xoolee sëriñ bi beneen bët lay doon loolu defe naa nit ñi nekk ñëpp bari na luñ ci xam luñ ci xam lu bare bari loo xam ne nii am na ñoo xam ne nii melokaan wa ñu doxe seen kër sëriñ la tax ñu koy doxee mooy la ñuy joxe te fekk nag di jotewuñ dara waruñoo jot dara boo ko doxee noonu nag da nga ko joxe du amal njariñ ndax ki am milliard ci murid gi di ko joxe ak ki am dërëm di ko joxe soriwul bu fekkee milliard pëste doo nga tax nga di ko joxe ki amul dërëm te amul dërëm kese di ko joxe te pëste tax mu koy joxe yenn yam wàcc waay ci murid ci murid saaga waaye nag léegi bu fekkee dañuy natt mbir yi ci wàllu man-man ak wàllu koom-koom moo tax kuy joxe lu ëpp yow la ñuy tuddee kuy joxe lu néew donte lu néew nga am duñ la tuddee murid léeg sax gis koo xam ne nii mooy tudde boppam murid saada ndax la muy joxe daa bari te loolu du nattukaay loolu ñàkk dégg dégg yi njàngaleen sëñ moo tax nattukaay yooyu ñu koy def te it di mu jur mooy ne bu ñu wëlbatee nattukaay yi mooy ne léegi taalibe yi rawanteetuñ ci sellu biir waaye ñi ngi rawantee ci man-man ak koom-koom ak noo ko mën a amee baax na noo ko mën a amee baax na te ku nekk xam ne ne sëñ bi nit daana ñëw jox ko addiye mu am lu mu ciy falal jël di falal di ko wax ne ko dërëm bii naa nangam man nangam loolu nag njàngale mag a mag ci biir kon maanaam saalik mooy addee ju bare bu ñëwee itam lu mu bari bari te fa nga ko jëlee jëlee woo ko fa na ko war a jëlee seetlu na war a sell lañ cey séentu donc ci maanaam kon nag ñu bàyyi xel ci ne addee ju dund ji lu am solo la ci kër yi mu murid gu nekk waaye nag bu mu tax mukk nga jàpp ne la nga waroon def ci xidma dafa mag waaye dangay jàpp ne loolu nag maanaam jumtukaay la boo xam ne nii moo la yóbbu ci nga tàmbali sa xidma sa xilma dëgg dëgg mooy nga tàmbale ko sa bopp kon mu bàyyi xel ci ni liy defar pëste fu murit du lu ñuy làmb di ko daj du lu ñuy xool di ko gis waaye melokaan lay doon woo xam ne nii nit daf koy mel nekk sa kanam nga di ko gis mu koy dugal ci sa biir te doo ko xam sëriñ Tuubaa wax na ci masaalim ne am na sëriñ soo xam ne nii ni ñuy defar seenu taalibe bi mooy xool xool rek lañ lay def sa nga baax xool dañuy def nga baax danañ ci joxe misaal ne bu naat ni muy jàngale ay doom mooy fóon lu mu bëgg jàng ci fóon rek leen xet ci leen ko fóon rek leen ko def ñu ko xam noonu la ab sëriñ di mel ci ab taalibam kon ku nekk ak ni ñuy defal seen am sëriñ yoo xam ñuy defal seen taalib mooy xool jàkk la ñuy def rek sa mbir daal di jàkk am ñeneen tam dañuy jël ñoo xam tam dañuy jëfandikoo yeneen jumtukaay yi kon liy defar nit dëgg-dëgg fi xaqiiqa ci nit ki lay nekk muy nit ki di ci inspiré wu wala boog mu koy transmettre ci tarixatin boo xam ne ni directement nit ki sax mën na koo bañ a yegg loolu mooy madisu madisu mooy koo xam ne dañoo taxaw fële xëcc la nga ñëw maanaam ñii soobu ngirum tasaw dañ ko daan jëfandikoo lu bare bare ci misaal tey buñ étage kaw am na koo xam ci escalier bi lay jaar ba àgg waaye am na koo xam da ngay taxaw ci ko étage ba ci misaal jox ko dara mu jàpp ci nga xëcc ko directement mu ñëw kooku xamul fi escalier noonu noonu la madisu wuutee ak koo xam ne ni dañ ko jaarale ci yeneen yoon yoon yi nga xam fa lay jaar bàgg loolu lépp nag ay jàng la yoo xam ne nii sëriñ bi moo koy def ci nit te di ko jaarale ci buntu xidma ndax bu nu xoolee tey sëriñ si nga xam ne nii ñoom la ñu taxaw di leen fàttaliku tey ñu bari ci ñoom se am na sëñ ko wax leen ci témoignage ay néegu ñax lañ daan dëkk lañ daan war mooy war waay woo xam ne nii fas a koy wala yu mel ne wala ñuy seen tànk ci yitte nii te moo na ñëw ñu tey ñi ñuy demoo ñun ñoo leen defar ñi ñuy demoo tey ñooñu ñoo leen defar tey ku nekk ñun ba la neex dangaa tudd kenn ci ñooñu ne ñooñu mooy sama maam te fekk ñun defar nit ñi amuñu woon mooy defuñ ci ay mooy yu bari mooy yu bari sax li jëpp li yàq moo li ñuy defar kon ñoom seen mooy tudd ci lañ jaare woon ba defar ay doomu aadama te amuñu woon yooyu kon ñooñu lañ doon liggéey ci ci wàllu ruux lañ ko doon liggéey léegi nag bu ñu demee ba sëriñ bi boo ñëwee lam la yoon mooy salon bu rafet wala la yoon mooy oto bu rafet wala yu mel noonu loolu mooy fab bi bokki taalibe yi ba taalibe yi bari ba jàpp ne loolu ci la ñu war a yëngatu fekk na loolu wuuti na xaw naa wuuti ak njàngaleem sëñ bi donte nag lu mënta ñàkk ci àdduna la jumtukaay yoo xam mënta ñàkk ci àdduna waaye nag ku nekk bàyyi xel ci ne bokkutoo nag li doon liggéeyu sëñ bi taxu doon sëñ bi jóg sëñ bi la ko taxoon jóg leneen loo xam ne nii ci ruux doomu aadama yi la koy doon liggéey moo tax kon bu ñu demee ba gis ne ne kon am na lu xew te li xew mooy ne murit yokk na lool mbooloo mi yokk na lool waaye nag positif ba nekkoon ci mag ñi bu nu waxantee dëgg danga xam ne am na ci ak soppi luñ ci mën a wax tey ku nekk ñun xëy na mën naa am sama sëriñ la woon doon nga ci moom sëriñ bi donte liggéeyoo ci dara waaye ku nekk xam ne ne bu njëkk sëriñ bu ma masaan wàcc dëkk waa dëkk bépp koy fab mab bu ñëw di ko nuyu am ñoo xam sax dañ koy raay am ñoo xam ne nii bu jàppee sax dañ naan jàppee ni am ñoo xam bu raxasoo ñu naan raxasit ni booba wuute naa jamono bi jamono ji léegi sama classe gépp ku ci sa xaftaan dong dugg ci dëkk ñu commencé laa daw loolu la kon am na lu xew li xew mooy am na lu ko li soppiku nag ku nekk da nga ko war laaj sa bopp sëriñ bi war na ko laaj boppam taalibe bi war na ko laaj sëriñ bi ndax war naa laaj boppam ndax man sama maam nam doon doxe ba nit ñi amoon ci moom xel gu toll loolu ndax man maa ngi koy doxe taalibe bi war naa laaj ba ndax man sama maam lam doon xool bay topp sëriñ bi ndax man mi ngi maa ngi koy xool ci sëñ ndax dañoo bàyyi xel ci ne diggante sëñ ñi bu du affaire xel du lu ñuy analyse ci xel li tax nit di topp doomu aadama du affaire xel ndax dañu wax ne xel moom bu doon jaay day lam ku nekk liñ ci am doy na kon li tax nga amam xel ba noppi na nga wëlbati topp borom xel na yow loolu leneen la loolu nag ñu bari dañ ko bàyyi xel léeg-léeg nga toog ci barab dégg kuy wax ba mu yàgg mu ne léegi gars yi dañoo yeewu misaal mun léegi nga dégg taalib bu ko wax ne léegi kat nit ñi yeewu nañ yu bare bari nangam ak nangam wala nga dégg sëriñ bi waxam yàgg mu ne léegi kat nit ñi dañoo yeewu loolu boo ko defee yow day mel ne da ngaa jàpp ne mag ñi doon topp sëriñ Tuubaa ñoom dañoo te fekk nañ mag ñooñu gënoon yeew ñooñu gënoon xam àddina fuuf xam koo taxoon ñu bàyyi ñooñu gënoon yeew te ndax ñoo ñëpp dañoo jàngoon ba dañu réer am na mag mu ko ma sox ci ma sa wax ci ñii topp sëriñ Tuubaa ñëpp kenn bokk ci ak sa morom foo jógee te bi ñuy ñëw yeggoowuñ te ku nekk ñoom bi ngay ñëw fii dangaa jàng ba dañu réer kon nag ku nekk war ngaa mën a xalaat ne ñi daje fii di mbooloo ñoom ñëpp mën ñoo bokk nekk dof kon ku nekk war ngaa xalaataat ci affaire yeewu te ak ñàkk moo tax ñuy toppante kon nit ku nekk war xool man lu tax may toppe ki ñuy toppe war naa xool lu tax ñu koy topp loolu maanaam laaj la bokk ku nekk da ko war a jëmale sa bopp ndax li soppi ku bari na te loolu ci la bokk te loolu nag ñu ko mën a jaarale ci bu ñu ko xamee bu noppi nag jéem koo jaarale waat ci buntu xidma ngir defaat ko ci nit ñi te xidma boobu mooy ñu liggéeyaat ci ruux doomu aadama yi bañ am himma yitte ju kawe joo xam ne nii lii ñu fàbbi ñun dootu dañ mën a fàbbi lii ñuy gis ba tax ñuy naw suñu bopp ñu ba ñoom lu lu tuuti lay doon ci ñoom ndax ku nekk bàyyi xel ki ne Sëriñ Tuubaa ci mbindam alali àdduna xotaam la ko tudde xotaam ci mat maanaam du mat waaye mooy poñ poñit poñ mooy matt yu sew yi nga xam ne nii moom ngay jël pour taal moom matul mat sëñ moom xotaam la tudde alali àddina mooy compagnie léegi nag alal jooju ak man-man yooyu nag moo tax léegi ku nekk di gis sa bopp di fëgg sa dën te fekk na loolu wuti naag li sëñ bi doon jàngale kon ñu ñëwaatee ngir tënk loolu ci wàllu xidma kon ku nekk ñun war ngaa man naka laay liggéeyee la sëriñ bëgg damaa liggéey sëriñ Tuubaa naka laa koy liggéeyee fu ma koy liggéeyee ko defee ku nekk ñu na xool fa nga jàpp ne mën nga faa liggéeyal sëñ bi nga liggéeyal sëñ bi bu noppee ne doo ko am luñ ko téye am na koo xam ne nii xidmaam dëgg-dëgg mooy mu ngi ci fexe ba xolu doomu aadama set ba nekk benn am na ci njaboot yi ñoo xam ne nii seen liggéey dëgg-dëgg bi ñu war a liggéey Sëñ Tuubaa dëgg-dëgg mooy ñu benn la njaboot yi ndax ku nekk xam ne ni famille lu mu gën di yaatu njaboot lu mu gën di yaatu gis yi gën di wuute yëf yi gën di wuute day am il ñoo xam ne nag dañuy jël seen bopp niser seen bopp ci liggéey ci luy boolewaat kàddu yi ba mu nekk benn ndax nañ bàyyi xel ci ne wuute kàddu ci biir njaboot yi bari na lum yàq te nag ndaw ñu bare bari bàyyiwuñ ko xel te am na mag mu ci mas a nett lu am solo nee na nee na njaboot yi ñu ngi mel ni ay nen nen yi ganaar ganaar mën naa nen lu mat fukki nen ak ñaar boof ko ba xëy ko toj ba cuuji xëy doxi seeni soxla te benn nen du ci toj moroom nee na bi noonu lañ mel nee na bu ñu leen bàyyee seen bopp nee na mën nañoo mel ne nen yooyu ba xëy ku nekk dem sa doxi say soxla te kenn du yàqal morom waaye nag nee na nee ni ganaar bis bu aw xeer ñëwee ne damay lijjanti seen diggante yeen ñaar yeen ñaar nen yii nee na ak yàq dana judd ndax bu ko nen laalee toj bu laalee nen mu toj loolu nag mooy ndaw ñu bare bari commencé dugal ci biir kër yi jëggaani koo xam ne nii maanaam dañ naan ab doxandéem la ci biir kër nga ñëw dugal ko ci biir kër gi moom cay lijjanti wala nga def loo xam ne njombe loo xam ne ni dana tax ku wër doon dugg ci kër gi di ci dugg di ca lijjanti loola ndaw lu nekk da nga ko war a bàyyi xel te ci ma bi ci la bokk loolu ndaw ñi nga xam ne ëllëg si bi ñoo war a ŋànk liggéey bi war koo téyel seeni morom ba seeni sët ñëw ñu jox leen ko ni ko suñu imaam téye woon jox ni ko ñu war koo téye ba jox ko suñuy doom suñu doom war koo téye ba jox ko ñeneen loolu def cee bokk ñu sàmm ndono loolu ndono loolu nag ñu koy sàmmee mooy fexe ba jiital pas-pas bi jiital xol yi rafet yi jiital bennoo gi jiital ne li ñu dajale woon te mooy liggéey Sëriñ Tuubaa daawuñ ko natt ci ñu koy natte loolu kon ci bokk la bokk am na ñoo xam mën nañoo liggéey seen bi ci wàllu jàng jàngale ndax ku nekkit xam na ne yar defar doomu aadama dafa ndax ndax sëñ bi dana koy wax sëñ bi boobu moo ko bindal boppam nee na boo jàngalee nit ki te yaroo ko maanaam kooku lu yàqu yàqu yàqu man luñ gis mu yàqu ci àddina bi kuñ jàngal te yaruñ ko moo ko yàq waaye nee tam boo yaree nit ki jàngaloo ko lum ñàkk yàq ko xañ maanaam tey koo gis ñu nax ko ci àdduna mooy koo xam dañ koo yar ba mu ne nër te gën jàngalu kooku nit a koy jëfandikoo di ko nax léegi nag kon am ñoo xam ne dañuy nësër seen bopp tam nag ci wàllu jàng ak jàngale te di ko def dugal ko ci buntu xidma lu am solo la tey kër gu mag boo fi dem daara nga daan fekk ci bunt bi taal bu rëy rëy yi wër ko di jàng am ci njaboot gi ñoo xam dañ ko féetewoo ñoom soxlawuñu leen jàngal jàngal rek lu ñuy liggéey léegi nag neewaar nga dem ci kër fekk fa taal bu mel noonu loolu itam ñu bàyyi xel ci ndaw ñu bàyyi ci xel ci ne ni ñuy taxawale daayira di dundal maanaam njàngaleem suñu maam yooyu noonu njàngaleem suñu maam yi bokkoon na ci nag dundal daara yooyu ñu di ko bàyyi xel kon tam ni ñu taxawale daayira la cay jógee waroon nañu am maanaam daayira sët bu nekk waroon naa am daara joo xam dañ naan lii daara yi ñoo koy financé kafe fay jàngale bu laajee fay ñoo koy fay donge bu ñu laajee dund ñu leen di dundal bu ko defee di liggéey ci ñoom di leen dajale di waxtaan ak ñoom di leen mën a jaarale ci njàngale bi si ndax dañuy wax ne yar ak taqoo nit ki boo dul taqoo moom mënoo ko yar mënoo yar nit te du la gis du la dégg loolu moo wax dëgg yàlla mën na si cee defar doomu kon bu ñu defee loolu bu pare am ñoo xam ne nag dañuy def seen xidma ci wàllu liggéey moom lu ñu war a tabax ñu tabax ko lu ñu war a defar ñu defar ko bu ñu waree róoji ñu róoji bu ñu waree déq ñu déq bu ñu waree góob ñu góob lu am ñoo xam ne seen liggéey loolu moo ñëw foofu waaye nañu bañ a xam ne daal kon sëñ bi li ko taxoon di liggéey dëgg-dëgg mooy ci wàllu róobi kon bu ñu tënk foofu la ñuy tëje tamal kon xidma ni ko mbokk yi tànne xëy na ni ñu ko traité am na ñu ko gën a mën a traité façon bu gën a leer waaye ku nekk ak la la ci gën a yitteel ndax ku nekk man nga koo jëfee jëlee ci beneen côté boo xam ne nii dana wuteeg moroom ja waaye bu mu ci di doon lu am solo la ci njàngaleem sëñ bi waaye nag balaa am solo dañ koy dégg déggin wu yaatu mooy ne lañ ciy def ci wàllu matière jumtukaay la ngir jëfe ko ci wàllu ruux bi ku nekk ci ñu nit booy ne damay liggéeyal sëñ bi nga tàmbalee ko ci sa bopp ni nga koy tàmbalee sa bopp mooy nga defar sa bopp ba ku la gis xemem la di la roy ni nga koy tàmbalee sa bopp mooy nga defar sa bopp ba kilifa gu mag la mu ne lay ruur ñag bi ci biir ñag bi lay juddoo yow nga fa fexe ba loola bay juddoo ci yow bay juddoo ci sa njaboot loolu boo ko defee rendre nga sëñ bi service boo xam ne nii service tollu noonu ku nekk ñun boo fexee ba lii tax ñu mën a jam yoonu murit du bàyyi ko ci yow xidma bu ëpp sol boobu kenn defal ko sëñ bi kon foofu la ñuy tënk kàddu yi sëñ bi euh, déedéet jërëjëf bu baax a baax sant ñëpp gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah